mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfee ci ànd bi ak kóolute bi ci seen chaîne KC TV chaîne bi leen di jox li ngeen soxla ci information tey nag dañuy dellu ca Nord Sindian ndaxte am na ab diir euh, waxuñu ci euh, te ñu bëri amaana ñu ngi xaar ñu jox leen euh, xibaar am ay nouvelles yu tukkee ca Nord Sindian foofee nga xamante ne semaines yi ñu jénn l'armée bi amal na fa ay opération de démantèlement maanaam yëkkati bépp base rebelle bu Salif Sadio foofee ca Nord Sindian ca fi nga xamante ne moo di ca commune bu Djibidione yëkkati nañu base yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kilifteef euh, kii di César Atoute Badiate te kii di euh, Paul Alou Kassine Bassène doon leen euh, gere foofee ca commune bu Djibidione ginnaaw loolee nag waxoon nañu leen ni bëri na ci ay askan wi nga xamante ne dawoon nañu làkku ji ci ñenn ñi ca réewum Gambie ñeneen ñi ca biir réew mi mooy fii ci biir réewum Sénégal waaye ci ay gox yu nekk ca Oulampane ca commune commune bu Sindian ak it ca commune bu euh, Kataba 1 ñu bëri foofu la ñu dem làkku ji ndax mën a mucc ci xare bu amoon ci diggante l'armée bi ak woy fuppi yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance tey nag ñu euh, fa yéene leen àndil lu bees ci euh, li nga xamante ne moom moo xew ca Nord Sindian ci surtout nag askan wi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo ces zones boobee comme waxoon nañu leen ni ñu bëri daw nañu village yu bëri daw nañu waaye jamono ji jàpp leen ni villageois yi ñu ngi commencé ñibbisi ñi demoon réew réewum Gambie ñu bëri si ñoom ñibbisi nañu dellu nañu si seen village yi ñenn ñi ba tey dañoo am psychose ragal dellu ci seen dëkk ñu dundaat li nga xamante ne moom la ñu dund moo maanaam tiitaange li nga xamante ne moom moo tax ñu jénn ci seen village yi dem uti feneen fi nga xamante ne foofu la ñuy nekk ba dal am ci seen zone boobi bëri na comme ni ma ko waxee bëre ci ay village yoo xamante ne jamono ji askan wi ñu ngi commencé ñibbisi ndànk-ndànk euh, bokk na ci village yooyu karu noor Karou Nord dégg ngeen ko ci sunu yeneen vidéo yi foofee euh, bokkoon na ci base yi nga xamante ne yu yu Salif Sadio Karou Nord bokkoon na ci foofee nag euh, jàpp leen ni askan wi commencé nañu ñibbisi Gaza l'armée bi dafa samp ci ay village yu bëri loolu sax tax na ba ñu bëri ci askan wi ñemewtuñu euh, ñibbisi ci seen village bi parce que miinuñu dëkk ak ñi nga xamante ne ñoo di militaires yi donc loolu si cause la si ñoom tiitange la si ñoom waaye comme ni ngeen ko xamee armée fépp fi nga xamante ne amal na ay opération yu dina fa nekk loolu stratégie bi nga xamante ne am nañu ko pour mën a sécuriser maintenir sécurité bi ci ci zone boobu maa ngi leen di wax ne bokk na ci këru noor ci ay villages nga xamante ne euh, askan wi commencé nañu ñibbisi Masara it euh, commencé nañu ñibbisi Jiro foofee it euh, askan wi commencé nañu ñibbisi ak Petit Balandine Baypeng ak yeneen ci ay village mënuñu lim yëpp parce que sinon day day gudd di fàttali ni village nga xamante ne askan wi babbeeku nañu ëpp na fanweer ci ay village yu nekk ca diggante Nord Sindian ak commune bu Djibidione ndax xam ngeen ni ci ñaari zone yooyee la l'armée bi amal opération ndax ca Nord Sindian foofu la Salif Sadio nekkoon fii nga xamante ne mooy Djibidione foofu la Paul Alou Kassine Bassène te nekkoon benn lieutenant ci César Atoute Badiate moment côté bobu la nekkoon donc ñaari zone yi la l'armée bi daal def ay opération ngir mëna a yoy les bases yu combattant yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance école yi it euh, tàmbale na euh, ubbi euh, ci ci zone bi enseignant yi commencé nañ tellu ci Sen village yi nga fofu servir jàpp leen ni ñenn ci xalé yi commencé waat nañu jang naam ñepp ñibbi siw ñu waaye am na nañu sen fit parce que sen village rek lañu am ñibbi nañu ngir mën a wéyal seen jàng waaye dellu ca fi nga xamante ne foofu la ñu xam foofu la ñu miin foofu la ñu juddu parce que ku ne fi nga dëkk rek foofu nga xam foofu nga miin donc loolu moo tax ñu bëri ci askan wi euh, ñenn ñi commencé nañu ñibbisi comme ni ma ko waxee école yi commencé na ubbiwaat jàngalekat yi dellu nañu xale yi ñenn ñi commencé nañu jàng donc situation bi moo xew ca fi nga xamante ne diggante Nord Sindian ak commune bu Djibidione am nañu benn témoignage ñu bàyyi leen ngeen teewlu ko pour ngeen mën a comprendre li nga xamante ne moom moo nekk jamono ji ca Nord Sindian ñu bàyyi leen ngeen teewlu témoignage bi ñu dikkaat. daanaka comme li xewoon lu jotoon na fan yee passé maanaam ci lu gëm ci ratissage bi daanaka léegi sedd na daanaka léegi nit ñi ñu bëri ñibbisi nañu ñu bëri ñu ngi waajal ñibbisi. léegi eh, xanaa kay tiitaange bi fa amoon ak lorange bu fa amoon waaw eh, daanaka boo seetee ba seet eh, ci weer koor bi la ñëpp d'accord loon parce que weer tuub la weer jégalante la weer bu sell la ah, weer bu bu bu bu barke la waaw nga nar a ñëw fitineel firkeel askan bi ci diwaan yi daanaka daanaka boo seetee ba seet ñu bëri daal loolu moom nakar na leen trop trop trop trop trop heure jëg heure bi daal euh, ku nekk waroon nga toog sa kër di jaamu yàlla di julli di jégal di jégalante mais bu yàlla defee ñëw loolu xew natt bi nekk ci biir ñu bëri mettil nañ ko trop trop trop léegi da gis ni fu mu ne nii ñu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri ñibbisi nañ ñu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëgg nañoo ñibbisi waaye am na fa ay base yu nekk seen seen ay base yu nekk seen seen dëkk léegi base mu nekk ci base boobu am na ñu ragal a ñibbisi léegi moo tax man mii ci laa bokk ne il faut que ñu organiser benn protocole boo xamante ne dina gisee ak su préfet ak maire yi waxtaan ak cantonnement yooyu ñu xool nu ñuy négocier encourager une population bi pour ñu ñëw encourager population bi ñu bisi parce que Gambie ay yeneen diwaan nit ki borom kër nëm nga bay sa jabar bay sa lépp dem nekk fenn ci ay conditions yombul dara moo tax vraiment euh, loolu bu amoon de dina baax trop. lu ci lu ci yokki tamit pertement bëri na pertement bëri na am na perte matériel am na am na maire yi am na benn jeune amul ñaar ñu am ci ay gaañu gaañu bon am na tamit pertement pertement ci dans ci hôpital yi am na benn hôpital bu Këbunkut batterie solaire bi nekkatul foofu yàqu na batterie solaire bi yàqu na astafurlah bactérieur bi kay jël nañ ko may naan yàqu na jël nañ ko des sites sites sanitaires fu nit ñi di faju garab yi jël nañ ko yu bëri moo tax vraiment bon l'état doit voir ci situation bi suñu sañoon militaires yi am nañu seen wàll ñun ñuy déplacé war nañu am suñu wàll ñun ñi am ci ay pertement parce que am na ci ay ñu perte ci ay lal ñu perte ci ay chaise ay moto ay solaire ay batterie yooyu yëpp nit ñi am nañ ci ay pertement ci diwaan bi am nañ ci ay pertement ci diwaan bi waaw moo tax vraiment euh, li may wax rek communautaire moom am na prime ñun daan suñu prime mooy un peu toujours le petit soutien ci bon si c'est possible sax matériellement sax baax na waaw comme on est déplacé on a fui bay nañ seen zone waaw ñu ngi sant tamit on tend la main à l'état au moins ñu am un soutien euh, à l'état di et état bi tam mu dimbali ñu waaw léegi daal vraiment sant yàlla la paix nit ñi commencé nañu ñëw nit ñi tàmbali nañoo ñëw waaye desaguñu mais am nañu nekk di ñëw école itam commencé na ubbeeku na bon seen yu bëri euh, commencé na surtout kenn commencé na ñaale commencé na prix njaboot ñu ngi ci jibiyoon tamit euh, ñu ngi ci les enseignants sont venus ñëpp tey sa maa ngi yoon foofu ji photocopie di tiré suñu dossier parrainage yi donc vraiment sant yàlla il a la paix il y a la paix, la paix est revenue. Et on souhaite une paix durable. Et on ne souhaiterait plus aussi qu'une telle chose nous commence à être et puis dans le mois de carême encore. Vraiment, on le souhaiterait plus, plus, plus, plus, plus, plus. Vraiment. parce que c'est une zone boo zone oublié, zone bi pas gagné lenn Nous avons toujours du bien de grands projets qui étaient là des DAC des jardins des machines des tracteurs qui étaient là mais on n'a jamais eu ça dans la zone jamais Si, le problème c'est ça blue game qui investissement nous amuñu c'est la brousse allah la ngi allah la ngi def musuñ encore en fenn ci télé la ñuy un y a un xamante ne tamit vraiment c'est pas bon c'est-à-dire que bon, Il hein, ne il faut pas faire ça mais donne-lui ce qu'il doit faire propose-lui forme-le oriente-le hmm. le problème c'est ça c'est c'est ça nous hein. fi yalla xamna ni ni se ñu bénéficier lu ñuy bénéficier fi néew trop de néew trop trop trop trop état bi na war xol mu gëstu ñu gëstu diwaan fooñ gestu gëstu diwaan pour mëna dimbalé nit ñi fi wa c'est vrai quelques villages yi ma fàtte cité la ñëw. boo commencé ñu fi départ bi fii Kër Noor ñëw naa ñibbisi nañu Masara ñibbi nañu ñibbisi nañu Guinée ñibbisi nañu Djidjiron ñibbisi nañu waaw ah, demee noonu ba Petit Balanding ñibbisi nañu Boulwaay Boy Pan daanaka diwaan yooyu yëpp village yi ñu bëri daal c'est pas à cent pour cent mais ñu bëri ñëw nañu quoi waaw ñu bëri kon mbokk yi lii lañu leen andiloon dégg ngeen ko ma ko rek diggante noor Sindian ak euh, commune bu jibi joon foofee la l'armée bi doon amal ay opération de démantèlement maanaam yëkkati base rebelle yu MFDC yu nekk foofee te Salif Sadio jiite côté Nord Sindian César Atoute Badiate jiite fi nga xamante ne moo di ca commune bu Djibidione foofu yëpp nag euh, daanaka armée bi. Amalna Operation opération bi waye ginaaw bu mu defé li nga xamantene ne démantèlement yi soldats yi dañoo daal ci euh, gox base di wax ne bari na ci ay villages yi nga xamantene ne commencé nañu ñibisi askan wi commencé nañu ñibisi bokk na ci village Masara Jiro Petit Balandine Euh, Baypeng euh, donc ñu lim ñii rek du yi les villages rek mais am na yeneen ak yeneen yi nga xamante ne foofee it askan wi tàmbale na ñibbisi donc njàng mi tàmbalewaat na xale yi ñenn ci ñoom ñibbisi nañu ak seeni parent donc situation bi moo xew diggante Nord Sindian ak fi nga xamante ne moo di ca commune bu Djibidione kon mbokk yi lii lañu leen indiloon ci xibaar di leen soññ rek ngeen partager vidéo bi ñëpp mën si jot ñu abonné wul nañu abonné ndax ñu ngeen mën a jot yéen it suñuy prochaine vidéo yi donc lii la woon KC TV ñu leen di jox dig daje ci beneen vidéo bu neexee sunu bopp